bismillahi irrahmani irrahim day aïchatu radiallahu taala anha moo ñuy nettali nu yonantu alayhi salaatu wassalaamu daa dundee fukki guddi yi gën ci at mi te mooy fukki guddi yi mujj ci weeru koor xadis jàng ci buxaari ak muslim mu ne kaana annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ida daxala al ashr yonentu sallallahu alayhi wa sallam saa yoo xamee ne fukki guddi koor yu mujj dugg si nañ shadda mizarahu ay takk tërëxlaayam wa axyaa laylahu dundal guddim ak jaamu yàlla ma ndax ci loolu lay xam mu ne wa ay qada ahlahu xeexit waa këram ñu bokk ak moom jaamu xam nga shaddul mizar kinaaya la ci dootul jotee teeg jigéen dara wala kinaaya la ci dafay yokk effort am yi nga xam ne jafe na lool ñu mën leen a yokk ci jaamu yàlla ndax ci koor lu dul koor yonentu sallallahu alayhi wasallam jaamu yàlla musta doxadi ci lu dul koor sax yonentu fa daa jaamu yàlla ba tànk yi bu ñu ne ko moo lii lumu te yàlla baal na la supposedly soo bàkkaaroon ci njëkk mbaa ci mujj mu ne xanaa duma nekk abdan shakuran ci xadiisu muslim day aïchatu mu ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam daan fatlu fi l ashri al awaaxiri lum daawut fatlu fi gayrihi lim nim daa fatloo ci fukk yu nee na ëpp na lool nim daa fatloo ci yeneen guddi te yeneen guddi yëpp fatlu la ci yonentu sallallahu alayhi wa sallam ba yegg ci njubaxten ka kon nag nañ ci góorgóorlu ndax laylatul xadri gim ciy hut boo dajeeg moom moo ëpp jaamu yàlla juróom ñetti fukki at ak nangam xayru min alfi shahr la yàlla wax laylatul qadri moo gën junneey weer yu néew weer nag danañ ko xayma ci quatre-vingt-trois ans ak quatre mois waaye moo ko gën la wax mën na ko gën junne yoon mën na ko gën million yoon mën na ko gën milliard yoon yal nañu yàlla defaral tawfiq bañ mën a dundal guddi weeru koor yëpp rawatina guddi yu mujj yi nga xam ne dugg nañ ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu tam nangul ñu nag tam nangul ñu